jamono moo tëdde nii nit nag bu dee nit ku nite nga ku civilisé nga da nga war a dox sa doxinu jamono jamono la mu daan mayee démb ak bërki démb mayew ko ndax li nga xamante ni moom la fi yàlla wàcc ci àdduna depuis daaw muy covid 19 bi yoo xamante ni ku nekk ci ñun war na ci def jàngat sa diggante ak sa borom la muy tekki rek mooy sama compagnie gi man Sibori war nañu xam ni benn man-man ak benn sëñ sëñ kenn rek moo ko am mooy borom bi ndax bi mu fi indee li lëmbale jamono ba nëgër ni ñi doon woote ak man ci médecine ñëpp tële nañu ñi doon woote ak man ci beneen fànn ñëpp tële nañu médecin yeeg sëriñ saak ñëpp ku ne tële nga ci lii di ci déglu yàlla la muy tekki rek mooy yàlla mooy wane boppam moo ne woon ci alquran sa nurihim ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu alhaq yàllaa ni woon dinaa leen wan sama bopp ci seen bopp wan leen sama bopp ci horizon bi feebar jaa ngi ci jaww bi kenn xamul fu mu ne saafara amagu ci kon ñëpp lott nañ ci ñanu yaakaaroon ne ñoom ñooy puissance yu mag yi ŋànk àdduna tey lott nanu yàlla ne woon na démb nag wala taxaafuhum wa nin in kuntum muminin bu leen leen ragal ñoom occidentaux yi bu leen leen ragal ci seen ay armes yu am doole yu sophistiqué déedéet ragal leen ma man yàlla la muy tekki mooy seen armes yëpp seen doole yëpp seen xam-xam yëpp ñu dajale yàlla daf leen envoyé benn virus bu ndaw boo xamante ni xëy na ci seen caabi oto yi ci seen kawas yi ci seen dàll yi ci seen bunt yi arme yooyu manu ci dara kon la muy tekki mooy boroom kantan gi kenn la il faut ma ma xaw ma xaw a sax euh, tuuti foofu. il faut ñu xam ni yàlla rek moo fi nekk. koo fi jël tekk ka palaasu yàlla ku dul yàlla nax nga sa bopp nax nga ko. moom yàlla boo ko jëkkewu lu mu jëwoo ko. mu jëkkale la mu jëla xalaxakum fi butuuni ummahaatukum fekk na laa taalamuuna shay ba bindal leen doom nekk ci biir ndeyam fekk xamul dara lépp yàlla moo ko yoral. defal la nopp defal la bët dafa la tànk def la lanen nga wàcc ci àdduna mu wër sëgalel la may lam xel may la kantan may la doole jamono jay la ba yàlla mi la defal teraanga jooj yépp nga ka fiy ginnaawal di jiital mbindeef ni yow di ko jox palaasu yàlla yàq nga ko alxuraan wax ni xéewal leen yàlla defal bu ngeen kat bëggoon a takk di ko lim manu leen ko wa in ta'uddu ni'matallaahi laa tuhsuha bu leen bëggoon lim xéewal leen yàlla defal ni mu toll manu leen ko takk ci bari gu mu bari wax nag inal insaana la zallumun kafar doomu aadama nag dafa dafa ingrat kon yàlla mi ñu defal teraanga la ñu ko war a delloo mooy dellu ko njukkal kennal ka bennal ko xamal ñépp ni yàllaa fi dama wax ni nit ku nekk lottu nga ci sa bopp nit ku nekk boo jullee sa ñaari rakk di nga tàllal yàlla sa loxo di ko ñaan ku amoon doo ñaan kenn kon yàlla doo nga fi nekk moom la ñuy ñaan yàlla doo nga mën bés dina ñëw nga téele lépp sa boroom sa bopp kon ca ngay jëm bay boo nga teel ko def bul tiit bul yokk ko ti daw kenn naa fi nekk di dundal kenn naa fi nekk di wéral kenn naa fi nekk di faj aajo yi kenn naa fi nekk di di defar soxla yi kenn naa fi nekk di yëkkati jant bi muy fenk di ko sawal di ko sowal kenn moo fi nekk keneen koo jox palaasam ku dul yàlla yàq ko koo mën a jàpp ak ko mu mën a doon te jàppoo yàlla jàppaloo kenn jàpp yàlla doo nga wér jàpp yàlla doo nga wér ñun ñëpp ay mbindeef lan nag ci suñu borom lu ne nag nit dina la wax maa la gën a yey ci diw ba mu des maa la gën a yey ci yàlla wa xanaa mu fekka ni dafa la fekkoon mu gën laa ragal sa borom mais maa la gën a bokk ak yàlla moom doo ko dégg kon covid bii fi xew ba tax li doon xew lépp dara xewul mhm. njàngale mu yàlla indil la pour wan nit ñi xelu leen te dellu si ci man ci noonu euh, Tafsir Ababacar est-ce que si Covid boobu mën nañ ci maanaam jullit bi wala doomu aadama bi mën na ci wéetal boroom ba am ci ngërëmal sunu boroom ci balaa bi mu wàccee. jullit warta sàggan bay xaar sax yenn circonstances yi ni il faut mu am pour ma wéetal yàlla. dama bëgg a wax ni jullit tout le temps dafa war a takkoo ak boroomam. mais Covid bi laa wax ni. yàlla indi na ko muy période boo xamante ni waroon nañu cee daw profité suñu diggante suñu borom. Hmm. ndax lépp lépp taxawoon. lépp ni teg couvre-feu am à partir de vingt doo gis ko dox ñu tëj baar yi tëj boîte yi dancing waaw wala déet jigéen buy jaay boppam nekkatul ci mbedd fu nuy jaay sàngara amatu fi coow ak riiru oto sax buy yëng amatu fi ba pare nit ñi dañuy teel a wàcc dugg seen kër ku nekk amoon nga jot ci jamono boobu xaw ma lan mais jamonoy covid bi jot am na mhm. dëkk bi daloon na jaamu yàlla gënoon na neex gënoon na yomb foofu mhm. wax dëgg yàlla loolu it xéewoon la boo xamante ni covid bi ànd na ak moom waaye la ma ca neex man daal ca neex ma ci mooy ku mus a bàkku ku mu mën a doon mhm. yaa nga covid baa ngi dina la wan ni yàlla doo nga fi nekk nit new mooy dan wax ni toggal say ñam solal lu rafet lu bees parfumé wul xayrul buxuuri la alaaji Malik wax wa afrisu sa jaadaati mooy ni def ni parfumé wu lal sa jaaday ngir terele ko boroom guddi gi fekki guddeem màggal ko mën na la jural njëggal bu ëllëgee yowmal xiyaam kon dèjà jar na ko dafa am ku dañu wax ni bu subaa yàlla def koy mbugal euh, bu subaa kan la yàlla di mbugal ñu ni diw diw lu muy def ñu ni ah julliwul woorul natul asaka waxul laa ilaha illallah ñu ni ah ñu ni waaw ñu ni ah, dañu ko war a mbugal yàlla ni acca mbugal leen di ko eh, diw mu ne ah mu ne ko taxaw tey loo def nga dundee ci àdduna loo defal sa borom muy defuma dara de defoo dara ci lu baax déedéet mu ni ko xanaa musoo fekke xanaa musoo fekke fu ñuy màgg fu ñuy gàmmoo yonent bi mu ne ah kay fekke naa fu mu ni gàmmu yonent bi ñu ni ko déet ku fekk gàmmu yonent bi kenn du la mbugal noo fekke woon gàmmu yonent bi mu ni yàllaa ma xiiroon may addu kalpe may addu kalpe benn bés gàmmu am ma fekk waaju taxaw ma këf kalpeem bi ñu ma daqee ma xam ne léegi ñu jàpp ma mërëc ma fekk fi ñuy gàmmoo ma ni saraax dugg ci biir mbooloo mi gars yi xool xool xool xool xool xoox gisatu ma ndax rax naa ak nit ñi ci biir mbooloo mi ma bàyyi ba asamaan set ma àndaat ak mbooloo mi ci des dem ñibbi lii daal man mus naa ko fekke ci gàmm ñu ni ko déet ndem mus nga fekke donte da nga jël alalu jàmbur ñu dàq la nga dugg ci biir mbooloo mu ñuy gàmmoo yonent bi yow keneen la ñu wax pour mbugal ko mais yow mucc nga ngeen ni waa jooju ko jàppe ni ku ndaw noo juum nga loolu rek nga def yàlla jéggal ko ci mu ni man day ki si des ni man musumaa dem fenn fenn laa musul dem musumaa def di dara ci tiyaaba lu baax waaye daal bés jël naa fekk kuy gàmmu ji ma yëkkati sama dërëm jox la la soo demee yóbbuwaaleel ma maa ko ca barkeeloo waaye ginnaaw loolu julleeg ya ca des sama yoon nekku ci ñu ne sa jëf jooju muy dërëm booba nga ca tàbbaloon yow ka ne nañu wax mais sa borom jéggal na la nga dégg fooraayu gàmmul yonent bi ki ci des mu ni man day dew ma lenn mu musa yóbbu ci gàmmu dafa am ndaw su ma doon bëgg laajte ko ñu ne ma dafa dem ci gàmmu gi ma dem di ko seet